wabarakatuh mbokk yi ginnaaw julli gi ba noppi nag <coughs> kàddu yi ci tege sëriñ Jiili Mbay mii nga xam ni la sëriñ bi jiitaloo woon julli gi dafa am kàddu yu mu bëgg a jottali jaaral ko sëriñ Cheikh Fall mu sëñ Mourou Sa Fall mu jëm ci mboolem njabootu Cheikh Fall gi kon ñu ñëpp ñu maa su ko déglu mën naa gàtt sëriñ Cheikh sëñ Jiili na kàddu yi mën naa gàtt ñoo ñi nga ñoo suñuy sëriñ ndax yéen ñi nga xam ni yéen suñuy sëriñ. digal leen waruñu. nee na digal leen dee waruñu. waaye joxewul ndigal dañuy waxtaan. waaye joxewul ndigal dañuy waxtaan de. ndax dañoo amul lu may seen yoonu maam ndax ñun day leen lan am muy seen yoonu maam wii. yoon wi nag dafa yàlla daa dogal. yoon wi nag yàlla moo ci. yoon wi du yàq mukk. waaye mën naa réer. waaye mën naa réer. mag ñi dañ daa sikkar naan. mag ñi dañ daan sikkar di wax naan. doonu réer duñ la réer. doonu réer duñ la reer waaye yoon wi du waaye yoon wi moom du yàqu. waaye réer nag mën naa am. waaye réer nag mën naa am. réer googee nag. nee na réer googee nag. yàlla bum ñu dal. yàlla bum ñu dal. loolu la ñuy ñaan. nee loolu la ñuy ñaan. sëriñ bi dimbali ñu ci. sëriñ bi dimbali ñu ci. ba yoon wi bum ñu réer. ñu réer. nii ngeen ko ŋànke. nii ngeen ŋànke yoon wi. bëgg seen yoonu maam wi. bëgg seen yoonu maam wi. lii rek a leen war. nee lii rek mooy li leen war. booloo waat leen bu baax. nan gën a booloo waat bu baax a baax. takk suñu ndigg. ak xam ni Cheikh Ibrahima rek a fi nekk. xam ni Cheikh Ibrahima Fall rek moom loolu am moo fi nekk moo fi nekk moo fi nekk. bu ñu demee ba sëñ Touba. waaye bu ñu demee ba borom Touba. yëkkati wor ma. yëkkati wor ma. ñun dong sëñ Cheikh Ibrahima rek nekkutoon ak sëñ Bamba. nee na Cheikh Ibrahima Fall rek nekkuloon fi keppaaru Serigne Touba gi de. ñu fab ko jox ko wor ma. waaye nag Serigne bi daa fa wor ma ji jox ko Cheikh Ibrahima Fall. kon wor ma joojee. kon wor ma joojee. nañ ca takk bu baax. nañ ca takk bu baax a baax. gën cee góorgóorlu. gën cee góorgóorlu. wor ma nag. wor ma nag. bokkul ak xotti saatir. bokkul ak xotti saatir. ñun buñ bokk ci ñuy xotti saatir. ñun day buñ bokk mukk ci ñuy xotti saatir. nañ wéy ci warma jën ñu jox. nan leen wéy ñun ñëpp ci warma jën ñu jox. dégg naa ci Baye Fall bu wax ni. dégg na ci Baye Fall bu wax ni. su fekkee da ngaa ñëw ci dëkkub Sëriñ Touba. su fekkee da ngaa ñëw ci dëkkub Sëriñ Touba bi. la sëñ bi bëgg mënoo ko la sëriñ bi bëgg mënoo ko nañ la fab génne ca àll ba nan la fab génne ca àll ba waaw loolu mën naa nekk mais loolu day mën naa nekk nañuy fab di génnee nañuy fab di delloowaat fan jóge woon fan jóge woon fan jóge woon waaye bu ñu xotti wor ma waaye buñ xotti mukk buñ xotti saatir saatir waaw nan nan wéy ci wor ma ji ñun ñii nan leen wéy ci wor ma ji di sëñ digal diis na nag lool nee na liggéey bu diis na nag diis na lool te metti nee na diis na lool te metti waaye kër Seex Ibra rek ko waaye daa seet ki ko attan mu yen ko ko muy Cheikh Ibra Fall muy Cheikh Ibra Fall kon ñi nga ne kon nee na yéen ñi nga xam ni yéenay sëti Cheikh Ibra Fall yéenay sëti Cheikh Ibra yi nan fexe ba gën a takku nan leen fexe ba gën a takku xam naa tuut naa ci digal leen nee xam na ni tuut na mukk ci digal leen waaye du ndigal waxtaan la waaye du ndigal day da ngeen koo jiital te ko ci kanam mooy wax rek te xel mi guddul te xel am guddul tam bari wax tam bari wax waaye daal waaye daal nañ ci gën a góorgóorlu nañ leen ci gën a góorgóorlu ci baatum digal bi ci baatum digal bi ci baatum bi kër gu nekk nee na kër gu nekk na jàpp ni nanga jàpp ni yaa war a jooyanti yaa war a jooyanti yaa war a defar yaa war a defar bu leen nekk kii mag bu leen ni kii moo mag bu leen nekk kii bu leen ni kii mooy gune na ñëpp defar na ñëpp maase taxaw ci defar ko ñëpp defaree rek nee na bu ñëpp defaree du réer du réer de waaw du réer du réer du réer de. yoon wi yàqu mukk. nee yoon wi nag faal. du yàqu sëñ Cheikh Fall. yaa sa rek yoon du yàqu mukk. mukk de. waaw ah, réer nag mën naa am. nee réer nag moom mën naa am. waaye nii ngeen def kat. waaye nii ngeen bokk def. bu ngeen ci delluwul ginnaaw. nee na bu ngeen ci deltuwul ginnaaw. du réer nee du réer de. du réer faal réer de faal. kon noo ngi sant bu baax kon nee nag mu ngi sant bu baax. di. siyaare Cheikh Amdi Modou Mbenda di siyaare jëwriñu Cheikh Rafal ji Cheikh Amdi Fall Modou Mbenda di ñaan mu yàgg fi lool ñëpp ñun ñaan ñëpp suñu borom yàggal ko fi lool ci defal ko wér di ko sant bu baax nee nag di ko sant nag moom bu baax baax de jiital ci jëwriñam ji jiital ci jëwriñam ji toog di sëriñ Cheikh di sëriñ Cheikh Fall di ñaan mu yàgg lool di ñaan Fall nga yàgg lool ak sa rakk yi ak sa yi ak doom yi ak sa doom yi mi ngi ñaanal ñëpp nee mi ngi ñaanal ñëpp di sàkku ñu ñaanal ma di sàkku nag moom mii day di seen ndaw ñu ñaanal ko waaw ndax noonu day ndax moom day Cheikh Ibrahima rek lan bëgg. nee na Cheikh Ibrahima Fall rek moom la bëgg. lenen bëggu na ko. di bëggu ko. waaw nan ko ñaanal daal. nan ko ñaanal rek. ba bu mu génn loolu. nee ba bu mu génn loolu moo bokkam yëpp. moo bokkam yëpp nee moo bokkam yëpp. waaw Cheikh Fall rek. Cheikh nee na boole leen ci ñoom waaw ak yéen Fall. yéen la njëkk ñaanal. topp ci kon war ji. nee kon war ji. nee noonu moom baax na. nee noonu moom baax ji nag. nee na ji nag dolli dimbali rek nee nañu dolli ni nee ni moom mii nga xay ni dafa gaaw a mer gaaw gis bopam gis ci dara nee na ci war dara kuy mer mënul jiite ku war ma waaw kon jërëjëf sëñ Jiili Mbay wa rahmatullah waaleykum salaam mbokk yi fi teew yëpp sëñ daam nee na mi ngi nuyu bokk yi fi teew yëpp ci turu jëwriñu Cheikh Ibra Fall ji ci turu jëwriñu Cheikh Ibra ji di sëriñ Amdi Modou nee mi ngi jiital ci nuyoo bi sëriñ Cheikh Fall mii toog muy jëwriñu sëriñ bi di kilifa getaay bii ñu toogit di ci teg rakki boppam yëpp ñi fi teew ak ñi teewul di ci tegit doomi boppam yëpp ñi fi teew ak ñi fi teewul di nuyu it mbokki taalibeem yëpp fu waay mën a féete ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall. sëriñ baa ngi lay nuyu de. mi ngi lay jottali ay cant. mi ngi lay jottali ay cant. ak i ngërëm. nee ci li weesu lépp nag. ak fii ñu toll. muy bis bii nga xam ni. mooy bisu tabaski gi. ñu daje fii tey. di ko dundal. nee ci ndigal. na ko Cheikh Ibrahima Fall daan taxawoo. ak ñi ko fi njëkk a wuutu. nee mooy ñaan nag yàlla nañ ko fi yàgg taxaw ca àddaje ca ngërëmul lim ci sàkku nee sëriñ bi nee na mëntu ñàkk a jottali murid yi ay cant mu jëm ci njabootam gii mu jiite muy njabootu Cheikh Ibra Fall gi ci taxawaay bii nga xam ni am nan ko ci liggéey bii ñu génn muy liggéeyub tabaski yi sëriñ bi nee na jëfe nañ ko noo xam ni kawe na njortam ci mat gi ak sell gi ak yaatu gi nee na nii nu ko defe de nee na feeñal na yéene yëpp ndax ñëw nañ fi day indi fi loo xam ni kenn ku nekk xam nga ni ay tànneef la kenn ku nekk da ngaa seet la nga gën le nga indi ko jox ko sëriñ bi ngir mu tegal la ko ci loxol sëriñ Tuubaa liggéey bi nee na liggéey bi mel na na ko gënal mel na na ko gënal de ban ko yóbboo si jëwriñ ja nee ban ko delloo yóbbu fa jëwriñ ja mel na ni mel na ni moom it xolam sedd na guyu kon ak cant rek moo ci des ak ñaanal ak ñaanal leen sëriñ bi wax ni sëriñ bi di wax ni ngi leen di ñaanal nee mi ngi ñuy ñaanal de ngeen yàgg lool ñu yàgg fi lool te wér lool te wér lool nag te jekku ndigal yi lool te gën a jekku ndigal yi bii daal bis bii daal. yal na doon ne yal na doon. njal beenuk njal beenuk. fajuk aajo fajuk aajo. ci képp koo xam ne ci képp koo xam ne. bi ànd nga ak sëriñ bi. ci liggéey bii ci liggéeyam bii. seral li ci dolliku nag nee li ndigal li nga xam ne. mooy ndigal li nga xam ne. la. mooy ndigal lu yees li. xam ni démb rek la rot. xam ni démb rek la fi rot si. muy ndigalu baatu sikkar turu. muy ndigalu baatu sikkar di turu yàlla wi. muy taxawaay boobu nga xam ne. muy taxawaay boobu nga xam ne. Muntaxa moom la Serigne Muntaxa digaloon daaw digale woon daaw ci njabootu Seex Ibra Faal gi ñaar fukki waxtu yi ak ñeent ñaar fukki waxtu yi ak ñeent yañu daje woon yan daje woon fa kanamam fa kanamam tudd yàlla tuddal ko fa yàlla dafa wax ni daa wax ni dafa sàkkuwaat ko sàkkuwaat ñu defaat ko ren ñu defaatal ko ko ren jii taxawaay bu mel noonu rek mel noonu rek nga xam ne day yokk nga xam ne day yokk waaye waaye dara du sa wàññeeku tànn nag mu tànn nag bisub tey bii bu dellusee bisub tey jii di alxames bu dellusee muy juróom benn fan muy juróom benn fan ci weer wii ñuy dugg ci weer wii ñuy dugg de muy sulier muy sulier mu wax ni mu wax ni dafa bëgg daa bëgg taxawaay bu amoon daaw bis ba taxawaay bu amoon daaw ca bis ba nan ko am ren yokk ko ci taxawaay yëpp ci taxawaay yëpp nag xéewal yi daan yi doon fàggoo nee na yi daan kuréel yi fépp ku wuyoo Cheikh Ibra Fall nekk sëriñ Amdi Fall Modou Mbene nee na nga ko fekk si ci bis bi ko sëñ Mountakha Mbacké digal ca pencum Daaru Minam rek fa lay amee ca biir kër Cheikh Mountakha Mbacké ga ñu taxawu ko fa ren nag daa wax ni soppi ku ci am mooy ab yendu lay doon boo xam ni day tàmbali juróom-ñetti waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu ci ngoon huit ci suba ba huit ci ngoon dana sukk fa kanamam mu ñaanal ñu moom Serigne Mountakha nag moom Serigne Mountakha Mbacké nag nee na fas na yéene nee fas na yéene toog teewlu lépp toog teewlu lépp ànd koog noonu ànd koog ba ñaan jot ba ñaan jot mu ñaanal mu ñaanal ñu ndigal lu mu say teg ndigal lu mu cay teg mu teg ko ca kon sëñ Amdi nee na nu waajal ko nan ko waajal nu weesu nan waaje woon daaw nu weesu nan ko waaje woon daaw fépp fu ab Baye Fall nekk ci réew mi dégg turu sëriñ bi dégg turu sëriñ bi xamal ni sëñ bi woona la ni sëñ Amdi Fall Modou Mbène nee na nga wuy si ko woona la ci bis boobu ci bis boobu muy alxames ji ñuy dégmal muy turu yàlla bi nee loolu mooy ndigal li nga xam ne moom la doon jottali sëñ Daam Fall Soda li ci dolliku nee li ci dolleeku ko bi jox mooy liggéey bii ko sëriñ bi jox muy sàmm war may Touba muy sàmmal ko war may Touba sëriñ bi feddliwaat ko te sëriñ bi feddliwaat ko bëkk démb rek bëkk démb rek man fa demee sëriñ bi nee na mi ngi ciy soññee sëriñ bi nee na mi ngi ci soññee ñëpp maase jàpp ci ñëpp maase jàpp ki ndax dafa mel ni ndax dafa mel ni yaakaari sëriñ bi yaakaari sëriñ bi jëm ci loolu yi jëm ci lool yi ci Cheikh Rafa rek la wékk ci Cheikh Rafa rek la wékk ak njabootam ak njabootam kon nag kon nag war na noo teg sunu def sunu yitte war na noo def sunu yitte ngir li sëriñ bi bëgg ngir li sëriñ bi bëgg mu am ko mu am ko yaakaaram jooji yaakaaram jooji bañ a tas mukk ci àdduna te it loolu am nañ yaakaar ci ni te it loolu am nañ yaakaar ci tas mukk de kon na ci ñëpp jàpp te teewlu ndigal yi te teewlu ndigal yi ni ko sëriñ Jili waxe ni ko Mbay waxe euh, ñu bañ di yokk ñu bañ di yokk bañ di wàññi bañ di wàññi yem képp ci ndigal yem rek ci li ñu sëriñ bi digal di bañ a jëfe sunum xel te bañ a jëfe nag sunum xel tey jëfe ndigal yi tey jëfe ndigal yi incha allah incha allahu ñi ñu tànnoon ci kër yëpp nag tànnoon nag ci kër yëpp

lii nga xam ne lii nga xam ni noonu lañ nar a doxale noonu lañ nar a doxale liggéey bi liggéey bi buñ jógee rek buñ ci jógee rek danañ ko yaatal yaatal ba ñëpp jot ci ba rek ba kenn du jóg ba kenn du jóg di doxe am xelam di doxe am xelam lu dul ndigal li li nga xam ni moom lañu sëriñ bi moom lañu sëriñ bi jox ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp di wax nag yàlla nañ ko téewe nag ci déwén ñun ñëpp ñaanal sëriñ Amdi Fall nag nag mu yàgg fi te wér yàlla wéral yaram yàlla ndax yéene ji mu am ci liggéeyu Cheikh Rafal bi ñëpp xam nañ ñun ñëpp bokk nañ ko xam ñëpp gis nañ ñëpp it gis nañ ko kon nañ ko ñaanal kon nañ ko ñaanal moom it mu wér te yàgg fi moog rakkam yi moog rakkam yi di jëwriñam yi di jëwriñam yi ak taalibe yëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Thank you.